lii man bu may wax. bu may wax. damay wax si jumaay tubaab bi njëkk. ndax jumaa ji Mor Mbaye laa tudd. maa ngi dëkk dëkk tali bu mag. di murit bu bëgg sëñ Tuubaa di ko dund. soxlaalu ma kenn dara ki xam na moom xam na lu may liggéey. ñu ngoog waaw léegi. li wax mooy damay wax si jumaay Tuubaa bi nga xam ni. dafa am déclaration bu tudd. naan jumaa ji dafa am ay signes franc-maçonnique ma bëgg xam ma bëgg a wax di interpeller waa kër sëñ Fallou ak waa kër sëñ Baara mu waa waa Daaru Xuddoos sëñ Fallou Mbacke moo ko tabax moo ko yeggale kon moom li muy wax dafa interpeller waa njabootu sëñ Fallou jumaay Touba la fa ci jamono jii sëñ Sidi Maxtaar moo ko fa def kon waa kër sëñ Baara sëñ waa kër sëñ Sidi Maxtaar maa ngi si kii déclaration bi mu def ni dafa ay signes façon franc-maçonnique jumaay Tuubaa nag fi mu jógee naa leen ko wax tey man maa déglu sama nopp sëñ Fallou Mbacke di wax ni sëñ Modou sëñ fa sëñ Tuubaa moo leen woo njaarim moog leen jumaa ji ma leen sant noppi ba pare seen dama leen yéen ak yow rek moo leen koy wax leen waaye jumaa ji ma leen sant yéen doo leen si dara man mii du was dara yàlla ak yonente moo moom loolu sëñ Tuubaa rek ma sax si jumaa mooy yàlla si jumaa ji it lu sëñ Tuubaa moom yàlla ak yonente bi moo yàlla euh, rasulaay mooy gën gi mu def ñu ne ko waaw munu ko lu ko yàlla defal leen ko defal bëgg rek ñu ñu am jom tabaax li may wax mooy kii nga xam ne dafa nekk jëkkati ay kàddu di di attaqué murid yi di leen wax lu nekk du ma tudd gouvernement mais damaa bëgg murid yi si boppam ñoom ñu jóg sañal ko seen bopp saayir si baati parce que am loo xam ne kenn waru ko bàyyi te sëñ Tuubaa waxoon ne yéen taalibe yi yéen taalibe yi seen i bàyyi si lislaam mooy saaba yi loolu sëñ Tuubaa ko waxoon waxuma ko sëñ Tuubaa moo ne woon taalibe yi seen baay si lislaam mooy saaba yi te saaba yi ku nekk xam nañ lañ taxaw woon kon kii wax li si saay rek si baatin na murid dal si koom bu ba ke kenn dal si koom yoonu murid li ñuy maye baaxul li ñuy maye baaxul lii ñuy may ku jóg xas yoon wi xam na wax nañ ko bàyyi dëgg la nag Touba moo fi nekkal lislaam ku mu toll ku bëgg a jox lislaam Touba ngay jox waaye ku bëgg a song lislaam Touba ngay song murid ngay song nañ bàyyi murid yi xam nga sëñ Touba nag naa wax loo xam ne ngeen xam ko tey sëñ Touba li ko yàlla defal laa bëgg ngeen xam ko man du ma wax xasida yi du ma julli jumaan dara mais da ngeen xool avant sëñ Touba di ñëw yàlla lan la def lan yan ñan ñoo gàttandu sëñ Touba. sëñ Touba muy ñëw ñan ñoo ko gàttandu ak bi mu bi mu ñi fi nekkal ak bi mu demee li fi bàyyi ku dul sëñ yàlla deful la ko déggoo ma leen hmm. ma jaarat ci. Hmm. sëñ muy ñëw ñan ñoo ko gàttandu bi mu ñëw si lan yoo loxo la nekkoon ba toll fi mu toll bi mu fi nekk ñan la nekkaloon ak bi mu demee ñan la fi bàyyi ku dul sëñ Tuubaa amoo amoon lii may wax nii amoo ko bi mu ñëwee waaye moom ak segul euh, ñu ngi seen euh, ñi nga xamante ne ñooy euh, waa mairie ville bu Dakar ñoom it ñu nekk ci organisation bi ñoo ngi xaarandi do moment à l'autre seen teewaay fii ci fàttali Barthélémy Diaz dafa war a daal di amal lii di installation yu ay tableau solaire fii ci Masalikul au Dakar ak euh, mosquée bu jëppal ak euh, bopp euh, Parcelles Assainies mu nekk lu am solo loole nag dina tax ñu waa courant bi daal di wàññeeku bu baax a baax fii ci Masalikul Jinaan njëgu courant bi facture bi mu wutal woon ci ñetti million ci suñuy koppar lañ doon fay weer wu ne waaye nag lii buñ ko installé dina nekk loo xamante ne dina am solo lool teggil leen euh, facture euh, yooyee euh, ci wàllu alam gi tamit mu nekk lu am solo ñu wéyandi programme bi fii. bismillaahi rahmaani rahiim. alhamdulilah rabbil aalamiin. ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi di sant Muhammadul Muntaha xalif général de Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ti wér loolu lañ ko ñaanalee sëñ am di Modou Mbène Fall di ñaanal suñu jëriñ Alaaji Màkk yu fay mu yàgg fi tey lii nga xam ni Barthélémy jaas def na ko defalu ko boppam defal ko kenn sëñ Touba la ko defal ndax jumaa ji yàlla ko fay sëriñ Touba fii ci Ndakaaru mu war a leer nañ ndax dañ ni euh, masal ku jinaan joyau la Masaalikul Jinaan benn la ci ci Sénégal ci Afrique koo xam ni am nga yéene taal jumaa ji muy bërëx di tàkk na leen say mbir lay bërëx bërëx di tàkk Barthélémy Dias raw nga sa bal tàkk na bu lamp yi tàkkee na leer ni say bal tàkk ñu ñoo ko wax ñu ngi ciy sant yàlla bu baax kii nga xam ne nag mi ngi wax ci ñun dara yéen góor ñi da na a sawar ñun ay amazone lañu ay jigéen lañu bu nu jàkkaarloog moom dina xam ne ay jigéen lañu dina xam ne sëñ Touba am na ay gaynde ñun ku laal sëñ Touba bu ko góor laal jox leen jigéen ñi jox leen jigéen ñi suñu jëwriñ ji rek mbàkk yu fay rek mën na ko duma mais du ko duma ñun la koy booleel ñun ñoo koy duma ngeen baal ma ak ci wax ji jërë ngeen jëf. macha mu nekkoon euh, soxna yi nekk euh, fii ci Masalikul Jinaan ñoom it euh, actualité bi yitteel leen lool ci lañ doon addu waaw ñu xaarandi ki nga xamante ne mooy Barthélemy Diaz fii ci enceinte bi mu war a daal di amal lii di. installation yu ay panneau solaire fii ci jumaa ji comme nañ ñu ko waxee woon ci njëlbeen mu nekk projet bu am solo euh, boo xamante ne ñi euh, àdde ay conseiller technique am euh, àddu nañ ci mu nekk ab programme boo xamante ne xamal nañu ne maanaam programme bi day wey ci yeneen zone yi buñ jógee ci lieu de culte yi maanaam lii di jàngu yi ak jumaa yi dañ koy wëyal Euh, ci euh, bâtiment administratif yi euh, bu ko defee nag ñi nga xamante ne ñoo di municipalité yi mën cee am ay économie ñeel seeni koppar ci doone sax koppar yooyu lañ doon dugal ci yenn ci